Euh, donc tey le 24 euh, avril am 24 avril yo xamantene ne précédé nañu fi ci Sénégal muy nek date yo xamantene c'est à retenir donc dañu koy commencer ak bu atum 1833 li nga xamantene ne moom moo ci xewoon euh, moo di dañoo daal nangul citoyenneté française askan bi nga xamantene ñom don ñom ñoom ñoo doon yeewoo ci diwanu Séné ci réewum Sénégal donc ñu don li ñu leen wax les habitants libres du Sénégal donc à partir du 24 avril 1833 la ñu leen di dal di nangul citoyenneté euh, française nous sommes ci 1800 yi ba tey 1837 24 avril euh, toujours Nous la ñu amal ordonnance royale française boo xamante ne daa di euh, euh, ville de Sor ñu Saint-Philippe donc nous mel Sénégal donc Saint-Philippe ñu ngi ko édifié euh, ci atum 1837 Benen 24 avril ci lañuy jall batay euh, ñu euh, jóge ci atum 1800 yi di dugg ci atum 1900 yi jàll ci 1947 ci le Bouna Ndiaye ñu daal di koy yëkkati ci dignité de grand officier de la Légion d'honneur française mom milé di Bouna Ndiaye fay Babacar xam ko donc bu baax baax du ñak dinañu am occasion waxtaan ci mom donc ñu jall ci euh, beneen date mu di 24 avril 1986 euh, ci la ñu amaloon ab euh, consultation boo xamante ne ñi ko ñeeloon wala ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko ŋonkoon ñi jiite woon église Afrique yi ci li nga xamante ne moom la ñu doon waxtaanee moo di ak ak yelleefu doomu aadama yi rax ci dolli ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñoom ñooy yi ñu amalon ci itam ap conférence bo xamantene ne mu ngi ñeeloon église yu Afrique euh, yépp alors ñu jéxalé ko ak 24 avril 2017 du date bu yàggul lool ñuy fàttaliku ci la gal bi nga xamantene mom mo moo fele fële ca ci euh, ca département bu Foundiougne nga xamantene lu tolloog ñaar fuk ak benn doomu adama jotoon nañ ci ñàkk seen bakkan am ñu bare bare yo xamantene ne won nañ ci ay euh, gañu gañu bokon na ca sax ki nga xamantene mom mo moo capitaine embarcation bi donc euh, c'était le 24 avril 2017 voilà li mo fi nekkoon ay éphémérides